Euh, laaj bu njëkk bi day rek doon euh, est-ce que tey euh, Sénégal lan la war a mën a gañe déjà sa jàngat déjà ci ci ci wàll woowu balaa yi ñëw ci Sénégal lu mu mën a gañe ci négociation yi bu entamé. waaw mhm. li ñuy wax rek d'abord mooy que ni dañoo war a sant yàlla. Mhm. bi ñu amee réew mu déjà réew mu dal la. Mhm. parce que sans la paix. amul kenn ku mën a investir ci réew amul kenn ku mën a jàng ci réew amul kenn ku mën a liggéey ci réew pour soqali réew ma ba mu am njeexital ci askan wi kon jàpp nañ ni ñun en tout état de cause ak sunu pas-pas fi ñu toll ci sunu réew jàpp nañu ni nous avons le droit d'éclair sur beaucoup de Sénégalais mm-hmm. du moment où le Sénégal maintenant est un pays pétrolier et gazier parce qu'on parle des milliards de mètres cubes de gaz, on parle des milliards de barils de pétrole, c'est parce que ce pays-là est devenu un pays pétrolier et un pays gazier. Quand vous ñu toogee le bañu le Sénégal dafa a a exploiter pétrole et le gaz. mu am ay des pays yi nga des pays industrialisés ci sunu di les pays les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts lolo tax sama commencement wax sank ma lepp mënti wax di que les intérêts vitaux de cette nation sénégalaise soient sauvegardés xam nga rew mo xamanteni tay dañ lay wax ci potentiel le Sénégal est un petit pays mais très riche en potentiel que ça soit sur les ressources humaines que ça soit sur les ressources naturelles légui nak ban jeexital la ci askan wi tay Sénégal am 29 blocs sur les 29 blocs il y a 7 blocs en non shore manam ci djéri ci ñaar en offshore moy bir geej am nga ci 13 moy fuk ak ñet en ultra dup ci bir geej am nga fa 9 ci kaw lolu dafa am ñaari projet yo au Sénégal. taxaw tay Sénégal moy projet sangomar biñu war exploiter le pétrole en fait, le Sangomar offshore profond superficie yi mu 5856 km. Le rifisco offshore superficie mu ci 4449 km2. Sangomar offshore mu ngi ci 4676 Boko ko boolee mu nekk 14961 km. Mon projet pétrole bi nga xamante ni moom pour Sangomar beneen bi mooy sunu diggante ak Mauritanie muy GTA Grand Tour du Ahmeyim foofu ci blogu Saint-Louis offshore profond la superficie yi mu ngi toll ci 9463 profond. quatre ñu war fa exploiter ci li prouvé pour le moment. 560 milliards de mètres cubes. production journalière bi. 14 millions de mètres cubes de gaz mais gaz Bobo, c'est un projet de liquéfaction liquéfaction ci nas euh, wolof le gaz liquide mhm. mhm. parce que transition épuration déshydratation ñëw ci pré refroidissement ba ci liquéfaction loolu moom du ma dugg ci détails yi mais daal japp nañ japp ni mhm. gaz la boo xam dañ ciy liggéey ba nga xamante ni dañuy ñëw mu nekk liquide mhm. ci gaz boobu dafa am lu wax FPSO mooy floating production storage of loading unité flottante de production et de déchargement la mhm. maanaam moom mooy raccordé li nga xamante ni moom mooy teen yi nekk ci suuf mhm. moom mooy def liggéey bi pour xëcc ko mhm. beneen bi FLNG mooy unité de liquéfaction du gaz naturel maanaam foofu lañ koy toggee plateforme la boo xamante ni foofu la ñuy toggee ba def ko liquide d'accord maintenant bu ñu koy jël nag di ko Europe di ko jaay bu ñu demee ba foofu dañ koy defaat ben opération bu ñuy wax regasification liquide bobu lañuy ñuy gaz mais ci contexte bi nga wax ni ak ki nga ndaw ki nga xamni ne ñëw na fi tay ji uniquement pour l'intérêt de l'Allemagne bo déggé sank man la xel mën na ci dal déjà ci fofu la fofu Sénégal xam nga xam nga exploiter xam nga ay réew commencé man damaa jàpp ni di waxtaan ak mom est-ce que déjà mën nañ japp né xel mën na dal ci négociation yoy japp nañ ni xel da ci wara dal lutax xel war ci dal parce que yor nañu lo xamni ñepp ko bëgg mhm gaz c'est l'un des énergies de fossiles les plus propres du monde. Mm. Mm. Chine. Mm-hmm. mu ngi milliards millions de tonnes de CO2. Amérique mm-hmm. mu ngi milliards 500 millions de tonnes de CO2. Mm-hmm. Inde mu ngi milliards 400 millions de tonnes de CO2. Afrique c'est boo ko ci suuf li 4 méthane boobu méthane boobu. am na quatre euh, euh, kii de euh, d'hydrogène ak benn boo xamante ni de carbone kon du loo xam day polluer. beneen affaire bi. mooy que ni ñun réserve yu mel noonu bu ko amee tey nous serons indépendants en énergie. bokkul ba tey. ak li nga xam moom lañ demoon seeti ko ci photovoltaïque boobu ngay wax. Mhm. di fàttali rek sénégalais. ni mhm. tey le Sénégal est l'un des pays les plus ensoleillés du au monde. Mhm. plus de 3000 heures d'ensoleillement. beneen bi muy Amérique. di Europe. di Asie. xam nañu mënatuñoo dem sans l'Afrique. Tout à fait. Parce que dañuy japp ni 45 des matières premières du monde aujourd'hui proviennent de l'Afrique Motax ndaw si bu dugg see rek mhm. cela veut dire que ni géopolitique mhm. géopolitique mhm. mu ngi dugg très bien parce que gis nañu Russie ni muy defante ak absolument européens yi ñoom ñu bokk autant. lan motax Allemagne nangul taxaw fi ñeneen ñi taxaw donc cela veut dire que ni intérêt motax tout à fait tëjul robinet yi te ñun tay géopolitiquement. Mhm. suñu exemple bu ndaw laa lay jox. Mali. Mhm. Mali a dugal plus de 800 milliards par année. Mhm. mais si bi ñuy un embargo ñun dañ cee bokk kan moo perte pays africains. c'est le Sénégal qui perd moo le lépp lu ñuy def. war négocier. le président Macky Sall. président de la République du Sénégal. gardien de la Constitution. chef suprême des armées et de la magistrature. qui a le clé de voûte de toutes les institutions. c'est lui qui nomme les emplois civils et militaires c'est lui aussi qui porte la signature du Sénégal ngir Yalla yonent bi li ñuy ñaan lenn kessa la que les intérêts vitaux de cette nation soient sauvegardés. très bien mooy ni nga tàmbalee lu am solo muy négociation yëpp en tout cas bu ñu ci mën a tàbbi rek euh, mu doon intérêt yi Sénégal ñu jox kàddu gi Ndeye Dimet moom it mu tàbbi ci waxtaan bi euh, ginnaaw ba ñu la nuyoo. jërëjëf Mohamed mhm. man aussi Malay, lay nuyu di la fay nuyu itam bu baax a Fatou Abdou. Mhm. nuyu tamit euh, suñu ay gan monsieur Sambatal, Tall nuyu la bu baax nuyu tamit Clédor nuyu ko bu baax a baax. Mhm. balaa may xuuf si waxtaan bi fan yële passé ci Petite Côte bi dañu gisoon ay débris yu bari yu génnoon donte ñu ngi def ay liggéey pour xool lan moo ko expliquer est-ce que mënuñu njort ni euh, liggéey yi ñu commencé di nemmeeku di seet pétrole euh, moo andi lu ni mel wala. waaw loolu pour addu ci déjà euh, pour être plus clair et précis nous avons des services compétents pour wax ci loolu parce que yor nañ fi ñoo xamante ni ñoo yor kaddu Petrosen. moo am aussi ñoo xam ne ñoo gérer tout ce qui est banque de données au niveau de Petrosen tout ce qui est liquide gaz lu ñu mënti def ci géej gi am nay prélèvement yoo xam ne dañ koy def kon comme c'est des fonctionnaires de l'État du Sénégal tey jii doon na baax lépp loo dañ koy gis bay li am des fois ci sur diggante ay boor yaraax liy fofu da fay bax état jël ay responsabilités am envoyé ñi nga xamante ni ñoom ñoo wara wax askan wi wax leen réellement qu'est-ce qui se passe mais japp nañu dal ni li nga xamante ni tey moom moo fa nañu deux exploitations. lañu am benn bi ko sur le bloc de Sangomar mhm. beneen bi sunu bloc sur le bloc de Saint-Louis offshore profond maintenant dañ def des tests am je ne saurais vous le dire parce que nekkuma sur site qu'est-ce qui s'est passé aussi je ne saurais vous le dire mais jàpp naa ni li nga xamante ni dañ koy respecter environnementalement mu am ay étude d'impact environnemental yoo xam ne def nañ ko en amont raison de plus lépp loo xamante ni xaw na xaw na laa lëndëm ci bëtu askan bi rek dañoo war a génn informer sénégalais yi ñu wax lan la au juste nit ñi xam lan la et de quoi s'en tenir. d'accord sànq maa ngi la dégg ngay lancer appel. le président Macky Sall que ne préserver l'intérêt euh, général fan yële passé refus offshore profond Total gas na fa mais gisuñu dara. Mm-hmm. te wax nañu ni ñi ñëw di seet bu ñu gisee dañuy seddoo mais bu ñu gisul dañuy perte. Mm-hmm. est-ce que foofu négociation yi mun ñu wax ni intérêt Sénégal dinañ ko en compte wala. foofu mën nañ cee tontu mais en amont déjà dañuy wax.